ndax njaboot gi yëpp njabootam la yàlla dogal nag mu jëloon ñoo xamante ne daf leen doxloo eh, ñuy ay kilifa ngir jàmm am ngir lépp dal ñu def nañ seen liggéey ba mu mat la ci desoon it mu am lu mu génne woon ab lim teg ko ci suñu loxo nun ay nuy taalibeem yoo xam ne loolu moom li mu laaj ci coono fii ba Casamance fii ba bi Bignona ñun dinañ fa dem ngir képp koo xam ne loru woon nga ci lan la ci war a joxee ndàmpaay mu jóge ci sëriñ bi ñun loolu lañuy dox kon kon kon kon kon Ablaye bi euh, tànkam bi nga xam ne ci xew-xew bi la ci gaañu woon euh, ngeen nekk ci di ko faj sëriñ bi jox na leen ñeent fukki junni ngir jàppale leen ko ngir ñu mën ko gën a taxaw lool loolu moom loolu ñu bëggoon tamit imam bi ak euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ak yéen ñu seere ko xam ne jëfi jëfi lislaam la rek jëfi lislaam nag ay nit lislaam bi ñoo ko war a seere jërëjëf loolu daal la ñoom doon doyee am am sëriñ bi mbooloo mi asalaamaaleykum man moom xam naa ne toll naa ci mbégte foo xam ne jéggi na dayo lii day firndeel moom gi nga xam ne sëriñ bi moom na ko njaboot gi ndax yonent bi dafay wax ne xayru naasi anfaahum te man loolu laa gëm ba nga xamee ne jamono yi sëriñ Saliou Mbacke am na lu xewoon Touba ñit am rajo yu ñu fa tëj mu am ku ma ciy waxal mu ne ma lu tax ma ne ko ñun bu fekkonte ne li ñuy wax dëgg la ku ci sëriñ bi fekk sa kër fekk fa dara ne dafa jóge loolu dafay jóge te kenn du dëgg ndax kat euh, am kilifa dafa noppale sëriñ Muntaxa yàgg nañoo demal géew la sëriñ Abdoulaye Ñang waxoon sëriñ Fallou Mbàkke di ko yàlla nga berkelee ni peppum suna yàlla nag fi sax ba doj ami xob nga uuf sa rakk yi loolu lañ ñaanal sëriñ Muntaxa ñun de am nañ mbégte goo xam ne dafa mel ni lii ñu defal Abdoulaye ñun ñoo ko def yàlla yàlla moo ci seere yàlla na seen ànd ak moom sax bañ teer ci kanamu sëriñ bi yàlla defal ñi ngërëm man de sama xool sedd na sama xol sedd na sedd goo xam ne xam naa liñ ma doon wax loo sax bokk la li waaye sama mbégte dama ko mënta nëbb fi ma toll euh, xale yow yi tamit ñu lay xamal ne la doomu aadama boo gisee ñi bokk tumuraanke di dooni bokk ñi bokk ci bokk daara di dooni bokk mooy doomu aadama bu bëtam xonqee ku ko fekk si rek koo koy mbokkam kon de yow mii tey jii maanaam asir nga ci sëriñ bi waaw te nag dañuy wax ne as boo ko toroxalee toxal ko waaye boo ko tereelee tëral ko loolu de sëriñ bi eh, teral na la teral na sa njaboot wax dëgg yàlla jëmm yi teew fii seen teewaay bi fii buñ ñëwoon rek seet si la wan la ne sëñ bi moo la seet si ah doy na sant yàlla waxtuma ak ba ci dara tege kon day moom gi moom jamono day gën a feeñ rek ñun de sant nañ sant koo xam ne wax dëgg yàlla man day sama wayjur mu xaddamu tijaan bu mag la mu ngi ci jàkk ji ngeen mu fekk fa lañ ko denc waaye sama bokk yi dañ may jëw naan moom murid la da koy nëbb ndax su ma nekkee sama oto moom laay xaadim damay wax ne xale yi toog sama place dañuy wax ne moom ku fi toog rek da ngay bëgg xaadim gi su ma nekkee oto moom laay déglu su ma sonnee moom laay déglu su ma meree moom laay ndax nag dañ foo xam ne la ko sanc mooy Serigne Touba sëñ Mat Saxir Lo doon jàngee ca kokki keroog ba mu njëkkee dem màggali fekk sëriñ fàllu ca tubaa sëriñ Fallou ba mu génnee ak àll ba def ne ko bu ma la fa gisati bu ma fa gisati la ko wax ne ko yow mii da ngaa nekk ci loo xam ne boo ci nekk nekkaloon ñun ñii la war kon kooku ma yar ndax Serigne bi moom senegal ñëpp njabootam lañu ku mu ku mu ku am lu la metti rek. foofu daf koy fekk ba fa mu ne moom mu metti ci moom moo tax kon jàmm rek moo war a am ci senegal loolu kon moom moo taxoon euh, yónni woon na ay kilifa yoo xam ne jóg nañu dox ba jàmm am ba mu dal euh, ñun nag daf ñu yónni woon yëkkati loo xam ne dafa wax ne nañ ko euh, jox mbooleem mi nga xam ne am nañu ay gaañu gaañu nu jéeme mii da cee bokk nag am na téeméeri junni yoo xam ne sëriñ bi jox na ko ngir pajoom bi gën a yomb ndax bu demee te yorul lu mu fajoo mën na doon loo xam ne day doon gàllankoor ci moom waaw kay jërëjëf loolu moo ñu indi woon tey laaye comme loolu boo koy def nag day baax nga jël seere imam bi mu teewee ko ndax yéen yéenay yéenay yéenay yéenay taxawaayu sëriñ bi fii waaw nga xam ne ku mën a doon bu doonee mu doon murit mu doon tijaan mu doon xaadir wala mu doon leneen kum ci mën a doon rek moom bu doonee imam fii rek moo fi nekkal lislaam kon ñun dañoo jaadu balaa ñuy def dara nga fexe nga teew ñu jox la loolu nga jébbal ko njaboot bi nga xamante ne Serigne Mountakha moo leen ko jox lii nag dëgg la xaalis la baax na waaye ñaan bi mu ëpp doole te defal na ko ñaan ba noppi daal di jël lii nag boole ko ci jërëjëf jërëjëf jërëjëf imam loolu de rafet na waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuy bu baax di leen ziar euh, len rek moom ma jaaxal seen délégation bi ngeen jiital ki sant Diop loolu rek moom si xaw a jaaxal bi waaye ñu leen nuyu bu baax di leen wàccee seen wàccuwaay waaw ñun dañ jàpp ni sëñ Mountakha moom moo fi teew waaw ndax arab yi dañuy wax ni ba man naaba fakk annama huwa képp ko wuutal daa mel ni yow yaa teew ñeen seen jëmm yi tey dañu leen di xoolee jëmm sëriñ Mountakha sëriñ Mountakha ban jëmm lañ koy xoolee jëmmi sëriñ Touba lañ koy xool kon tey dañu jàpp ni jataay bi sëriñ Touba se moo fi teew waaw di ko rafet lu lool di ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ba si kanam ak kanam yàlla defal ko wér yàlla matal ay yéenam yëpp bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw lii de lu ñu rafetlu la lii mooy taxawaayu kilifa lii mooy taxawaayu sang lii mooy taxawaayu njiit waaw di ñaan yàlla nag ñu mel ni ñoom yàlla na yàlla sa bari leen yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yàlla jàppale leen bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne moo tawat tamit yàlla na yàlla saafara ko yàlla na yàlla delloo ko ci sagoom euh, lim ko jox tamit pour mu pa dimbalee ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla ba fayal ñu ko yàlla na yàlla ful ko yàlla na ko yomb bi jaaxe nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg ñu gàtt euh, ba guddal wax dëgg yàlla sunu xool dafa sedd te lii moom lu rafet la te lii rek c'est moo war jullit rawatina nag ba kilifa jullit dafa war a yore jukkoy puso warul yor ba jukkoy lenset di yaakaar naa bokk na si jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di defar di rafetal lépp lu nar ñaaw nga fexe pex ba mu rafet lu nar a yàqu nga fexe ba ñëpp delloowaat nekkaat benn wax dëgg yàlla ñun ci bu njëkk dañu njëkk rafet lu taxawaayam lu jiitu li waaw ndax fitna bi amoon fii kenn xamul sa fitna fu mu yem olof fii dañuy wax ne ñun ay du yem ci boppi borom borom bi tabaraka wa taala moom moo ne baar aus billahi mina shaytan rajim laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa waaw mu ne ay du yem ci boppi sa borom kon boo gisee fitna nga fexe ba fay ko loolu wax dëgg yàlla jaamu yàlla bu rëy la waaw ngi koy rafetlu bu baax di ko ñaanal yàlla yan taxawaay bi yàgg yéen tamit di leen sant di leen gërëm tànk yi ngeen jugee ci dëkk ba bu sell boob ñëw ba fii yi ngeen ñëwee ak yi ngeen delloo yëpp yal na yàlla bi nga leen ko yiw bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu lool ñu def fatiha salaatul fatiha ayatul kursi li xalaas falaq ak naas salaatul fatiha yal na yàlla defal ñu jàmm adlahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin xam ne sama sëriñ la sama sang la di sant si di sama sëriñ di ñëw ci turu sëñ Mouhamadul Muntaxa di massawu rek sunu doom ji nga xam ne dafa am gaañu gaañu ci xew-xew yi amoon sëñ Muntaxa nag dafay koo xam ne fu waay mën a nekk ci réew mi lu la dal rek dina dina faw dina ko yëg moom moo tax ba mu jógee daal di taxaw fi saa si eh, tànn ci kilifa yi ñoo xam ne doxloon na leen lu tax jàmm am yàlla suturaal ko ci nangul ko ko mu doon loo xam ne réew mépp ko gis rafetlu ko bi loolu jàllee nag moom mu yëkkati lim boo xamante ne ginnaaw bi mu ko waxee kilifa yooyu ba ñu dox ci lañ ci war a dox nun moom tànki taalibe rek la ñuy dox mooy yëkkati eh, jóg dox ko fii ba eh, Ziguinchor fii ba Bignona foo ci xam ne xale euh, ak am na ci njaboot bi ñoo xam ne gaañu nañ fa wala loru nañ fa ci nu mu mën a doon rek ñu dem fekk ci njaboot ji jottali leen ñaanu ko Serigne Mouhamadou Mountakha ñaan gi moo jiitu ak li nga xam ne it daf leen koy jàppale ci wàllu paj mi kon imaam maa ngi koy teg ci loxol imaam mu jox leen ko li toll na ci téeméeri junni cinq cent mille la dina mën a dimbali sëñ bi ñoo faj ko su ko defee mu ngi mën a delluwaat ci sagoom ak ak ak wér-gu-yaramam gën mën liggéey liggéey jàppale ay bokkam jàppale waajuram jàppale réew mi lii daal loolu moom li ñuy ñaan mooy sëñ bi yàlla na fi yàgg rek te wér dafa yàlla na fi yàgg te wér ginnaaw yàlla ñun murit moom rek lañ am di ko ñaanal yàlla na yàgg te wér te li ngeen taxaw yi ñii tamit yàlla na yàlla defal jàmm fay leen ay yu bu baax baax si barke Serigne Touba parce que mu ñu leen fay li ngeen def nii wastu àq la rek sëñ bi def li muy def nii moo na ko bañ a fekk wante comme ñun moom lañ am di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla bay suñu kanam yàgg fi te wér peng yéen it ngeen yàgg fi te wér yàlla bàyyi suñu kanam yàlla dafa leen jàmm si barke borom Touba loolu laa moom la ma si wax waaw kii nag moom mooy suñu imam mun ñu ko fay moom mooy suñu imam koñ bi mun ñu ko fay lu ñuy xewlee lu jug taxaw ak tànkam. foofu rek loolu lañ ko waxe waat euh, di sant sëñ bu baax di ko ñaanal yàlla taxawaayam yàlla na yàgg yàlla na yàlla defal ko wér yàlla bàyyil ñu ko fi bés kanam kanam yéeneem yu mu am ci njaboot bi yàlla yàlla matal yéene bi te yàlla moo ngi jëfee ndigal yonte bi sallallahu alayhi wa ndax sallallahu alayhi wa moom moo ne man kaana lahu maalun fal yatasaddaq bi maali wa man kaana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmi wa man kaana lahu quwatun fal yatasaddaq bi quwati mu ne ku yàlla dénk nga am alal neen alal bi nga am fen nanga ci saraxe te yaakaar naa li bokk na ci jàppale askan wi tànk dimbali nit ñi ngir kan ka ngeen xam ne moo leen moom moo fi mooy seen sëñ Tuubaa di suñu borom Tuubaa ñun borom Tuubaa rek la nuy nooyee te lii it wax dëgg yàlla ah, séntu séntu woon nañ ko ndax xam nañ ne borom Tuubaa fu mu ne dimbali askan wi ndax it mooy sëñ bi sëñ bi rek moo fi ne ñun sëñ bi rek la ñu yaakaar kii fi nekk ak papaam lii bañ koy def kenn seen tuuroon lii mais xale bi seen buntu kër la taxaw lii ñëw fekk ko fi waaye kon mën nañ ne nattu la maa muy ndogalu sam borom waaye dul kenn yéene ci barke xaatimu lan bi yaaw imaamul mursalina nag yonent bi moom ah moom sunu lépp ci moom lañ ndax ku yàlla lii am di lépp yàlla ci moom la ko dëxëñ waaw kon nan doolee sant te doolee koo ñaanal